le besoin de revenir aux sources a été plus fort. Notre amour pour le Sénégal et notre passion pour l'image a fait de notre rencontre une et de notre projet un rêve à partager. Ce projet est pour les Sénégalais, les amoureux du Sénégal et de l'Afrique. Vous montrez l'Afrique en vrai, partagez avec vous nos plus beaux environnements, nos traditions, notre culture, notre bonheur africain. De l'Afrique semble souvent malade. Être l'enfant pauvre du monde alors que nous portons la plus grande richesse de cette planète, des hommes et de leur histoire. Parce que les images souvent diffusées de l'Afrique nous montrent ça. Alors que nous avons des merveilles à vous dévoiler. émerveillés par ce spectacle. Fort de notre passion pour l'Afrique et de notre expérience en audiovisuel, Mao et moi avons imaginé réaliser un documentaire afin de partager avec vous et le monde la vraie histoire et l'actualité de nos vies africaines. En images, en musique et en couleurs, il s'agit de réaliser un film pour vous raconter l'histoire du Sénégal, la diversité des paysages du nord au sud, de l'est à l'ouest, la diversité des populations, les innovations et réussites des dix dernières années. La production complète du film se fera par une équipe au Sénégal avec des artistes sénégalais et des résidents. Nous faisons appel à toute la communauté sénégalaise, aux amoureux du Sénégal, aux panafricains, parce que ce projet est avant tout un projet pour l'Afrique. Soutenez-nous, rejoignez-nous, suivez-nous dans la réalisation de ce projet. le Sénégal entre ciel et terre ak vert jaune rouge bi ex laay bàyyi mu jàkkaarloo. voilà alors un plaisir euh, Mao donc euh, toujours. ah baal ma rek. du Edi Odi la. Odi waay suba ba léegi maa ngi koy woowee <laughs> Odi tam dafa xaw a raar daal. bii grave noo ko woowee baax ah, problème Odi. dañuy tooñante rek bàyyi ñu wax ko Odi. bàyyi bàyyi comme moo ko jekkoo dama koy kii moom. Ah. donc Odi donc Odi on va dañ koy auditer tey. Odi Valère voilà. <laughs> Jean bisou à ta sœur magnifique. exactement alors donc euh, un plaisir hein, de voir que le Sénégal aujourd'hui donc des Sénégalais patriotes bëgg jaay la destination euh, Sénégal et puis li fi nekk mais projet bi euh, c'est vrai après les images et le son on a envie de savoir le déclic c'est ça vient d'où euh, parce euh, entre <laughs> l'artiste et le voilà producteur audiovisuel et tout ça le déclic qui vient d'où fu mu jógee quoi je pense qu'on est qu'on est qu'on est animé par le par le même désir dans le sens où euh, ah, bon waaw ah. koy wax olof. waaw ah, moom muy wax français. ñii déglu ñëpp ñi seetaan mun a comprendre ak ñi seetaan aussi parce que am na ñoo xam ne ñi ngi seetaan mais dégguñu. c'est vrai c'est vrai c'est vrai. léegi wax ñu bi en fait Audi Audi Audi. non kii gën a xam micro nu muy fonctionner de. <laughs> mais pas yi man micro bi ñu téye laa xam. <laughs> <laughs> mic laa xam quoi. Ah, non pour pour euh, euh, pour en, tout cas voilà Audy Audy fii la juddoo bi mu nekkee bi mu amee ay sept ans la dem la dem dellu en Europe dund foofu pendant je pense 17 ans après ñibbisiwaat fii. Mm. installé au Sénégal man j'ai vécu 15 ans en ah, bi ma amee 23 ans laa dem dund fa 15 ans donc du coup ñibbisi tamit mais en fait. tout le temps même image yi la ñu remarqué woon ni bu ñu wonee Afrique rek c'est la misère c'est la guerre c'est euh, maanaam le bon le côté le bon côté de l'Afrique on le montre jamais mm. et du coup comme moom mi ngi ci milieu audiovisuel bi man tamit et puis on a on a eu beaucoup de projets qu'on a bossé ensemble léegi nag bon on avait euh, ce projet là bu nga xam ne amoon nañu envie euh, l'idée c'est pas vendre la destination Sénégal à d'autres c'est de vendre la destination Sénégal aux Sénégalais déjà oh, d'abord voilà parce que c'est très souvent ñun ñooy ñun ñoo dul xam lan moo am suñu eh, dëkk déjà. mais les euh, étrangers bu ñu ñëwee ñoom ñoo ñuy gën a xam si suñu dëkk que ñun ñun moom fooy dem rek da am mbokk foofu moo tax. <laughs> dama amoon France gàcce boo xamante ne xaw ma fu ma koy expliquer dama toog ay ay ay français ñuy waxtaan ñu nekk Sénégal nga jóge ma ne leen waaw ñu may laaj ay coin xam nga fii demoon nañ fii j'étais là comme ça. mënuma mhm. wax parce que mësuma fa teg sama mhm. tànk. absolument. donc loolu gàcce la pour man que sa dëkk am richesse yu mel noonu. et que mësoo fa teg sa tànk. non c'est vrai est-ce que gënoo xam France que Sénégal. ouais. si ça se trouve. <laughs> si ça se trouve au-delà de Dakar. oui oui moo taxit les régions phares donc. Mm. xam mm. voilà voilà parce que fii on a tendance même man bi ma nekkee xale ah booy dem vacances. Mm. c'est que kër maam kër kii. mais dund France par exemple bi ma ñibbisee si laa commencé remarqué mais en fait man côté xaw ma Sénégal et le ci ngay commencé di voyager ndànk-ndànk di découvrir et puis plus ngay découvrir plus t'as envie et puis le fait que maak moom partagé nañu ay projets yu bëri yoo xam ne ça nous a amené ay Toubacouta ay kii yeneen ci yeneen régions yeeg yooyu ci àll bi mhm. et euh, donc du coup on se dit mais en fait endroit yi yëpp xamuñu ko en fait et c'est important que ñu xam ko même culturellement parlant il y a plein de choses qui disparaissent donc projet bi du visuel rek parce qu'il y a la musique aussi qui qui qui a une part très importante aussi euh, l'idée c'est c'est par exemple dëkk bu ñu dem ah euh, culture bi fa nekk ak yooyu yëpp wane ko et puis euh, am musique séeréer bi manjaak bi joolaa bi wolof bi pulaar bi et puis prendre aussi des des des des chanteurs xam ne ki nañ mën a justement andiwaat cosaan beeg yooyu yëpp. magnifique magnifique berceuse yooyu yëpp da ciy da ciy bokkaat ah. moo tax bu ñu nee entre ciel et terre parce que ciel c'est très vaste. vaste mais bu ñu naan terre mooy caméra au point ça veut dire que di nga mën a jege nit yi jege un peu émotion bi et puis euh, retrouver aussi plein de choses qui qui tendent disparaître comme ay yenn instruments yi xam ne kii pratiquement kenn xamatu ko ay tukku sa ngalam ak yooyu est-ce que bii xamatu <laughs> ay riiti ay riiti ak yooyu yëpp xam nga yaa am na riiti joolaay am na riiti riiti pël yi ak yooyu yëpp euh, pourquoi pas par exemple bu ñuy dem ay Fuuta ak yooyu yëpp pourquoi pas duñu am bu ñu amoon ku mel ni Baaba Maal xam nga mi nga xam ne ki moom il est connu internationalement parlant et puis et puis en plus il a Euh, ci Black Panther beeg yooyu yëpp. c'est vrai yooyu mu lay jël noonu moom lañ am ci documentaire bi qu'est-ce que ça représente pour toi puisque tu as vécu beaucoup plus de à l'extérieur euh, que qu'au Sénégal. Comme l'a dit euh, Dimao, moi je suis revenu au Sénégal en sur un, coup de tête parce que ça faisait 17 ans que j'avais pas mis un pied euh, chez moi. je suis, ici. <laughs> Mhm. Pourquoi je parle pas Wolof C'est. Ma mère elle va m'en vouloir mais c'est parce que mes parents m'ont ne m'ont pas parlé en Wolof. Ils parlaient euh, les Wolof entre eux, mais ils ne m'ont pas euh, parlé. Ah. Je pense ah. qu'ils voulaient peut-être que je m'intègre bien. Mmh. Donc ça a été une bonne chose, mais aujourd'hui, je le regrette quand même euh, un petit peu. mais c'est pas grave, j'apprends, j'apprends petit à petit. Et, ouais. et justement, après 17 ans, je suis revenu dans mon pays, mais je le connaissais même pas. Parce que comme, comme le dit Mao, souvent à la télé, on ne voit pas des images forcément positives de, de l'Afrique. Et euh, en étant sur place, en le découvrant petit à petit, je me suis dit, mais si j'avais su que mon pays était comme ça avant, mais je, serais, je crois que je serais rentré depuis longtemps. Mmh. Et je pense qu'il y en a plein aujourd'hui, ou justement dans cette situation de crise en Europe, qui, savent, qui hésitent à, à revenir. Ah okay. Et comme dit, euh, dit Mao, euh, ce film, il, va, il a quand même un, un côté euh, touristique, mais le message aussi, c'est de dire aussi aux, aux Sénégalais de la, qui sont à l'extérieur, revenez chez vous. Il y a, on a un beau pays, on a beaucoup de choses à faire ici. Mhm. Vous pouvez développer beaucoup de projets ici dans, dans, dans, dans des entreprises ou dans dans l'entrepreneuriat. Mmh. Donc, euh, donc voilà, je crois que c'est un, un, message, euh, un message fort aussi qu'on veut, qu'on veut, qu'on veut, veut, lancer. Et justement, on veut, on veut aussi que ce film soit diffusé peut-être à la TFM, mais non, aussi à l'extérieur. On à commence par la TFM et à après on s'ouvre. Vraiment que ça c'est une grande portée en fait. D'où le fait de vouloir travailler aussi avec des artistes comme, comme disait comme Baba Mal, ou des VOV qui seraient sénégalais qu'on portait aussi euh, international. En fait. Mhm. Mhm. D'accord. Alors, euh, c'est vrai que c'est un documentaire que vous allez faire, donc 52 minutes, mais en euh, euh, fait, c'est après pour le porter, c'est vrai, le projet, vous avez besoin de, de gros mécanismes comme l'État, euh, vous aider à aujourd'hui communiquer sur le plan international. Je ne sais pas, est-ce que déjà vous avez commencé à entamer ces... Euh, non, mais déjà pour entamer ça, il faut finir le projet parce que ça a un coût. Et je pense que loolu moo leen fi indi tey ndax te projet bi cher na et il faut que nit yi jàpp si pour mu non mais voilà, euh, justement, à la base, on avait créé un, un, un dossier. Ouais. Donc, mais on n'avait pas commencé le film. Et c'est vrai qu'avec ce dossier, on n'a pas eu de retour. Mm. Et j'ai dit à, à Mao, je pense que je peux comprendre

de, de, nos propres moyens et par amour pour le pays, on a commencé quelque chose. Mm-hmm. Maintenant, on a besoin de, de vous pour le terminer. Mmh. Ok. Des supports. Euh, voilà, voilà, euh, de communication. comment ça se passe Pour participer donc oh. pour participer, comment faire pour participer Il y a un lien qu'on a mis sur, la page YouTube de, de mm-hmm. On a mis aussi un lien sur la page Facebook du film, Le Sénégal entre ciel et terre. Donc on a un lien justement de, de crowdfunding où les gens peuvent participer. Donc on en est aujourd'hui presque à 15 ou 20 mais on a commencé aussi à avoir des contacts au niveau de certains euh, ministères qui ont commencé à nous, nous, nous contacter pour nous, euh, nous rencontrer. Mhm. Donc euh, je dirais que c'est déjà un, un premier pas En avant vers, le euh, Sénégal, il est très coup de fil. Hein. Vous n'avez pas un numéro de waaw, fixe waaw, ou de parce que, parce téléphone que ñu ci bëri ñu ci bëri dañuy bëgg a ex mais yi seetaan dégguñu li ngeen nga dem rek France rek yow ne doo ñëwaat bien sûr non maa ko yóbbaale tey maa ko yóbbaale oh, oh, euh, donc au niveau mais euh, am leen numéro de téléphone bu ñu mën a wootee pour ñu bëgg a participer voilà donc je peux le donner ouais

29. audi ngeen di jot ngeen jàpp si projet bi pour que ñu mun wan Sénégal sénégalais yi déjà ak aussi ñi nga xamante ne dëkkuñu Sénégal ñu mun a ñëw suñu dëkk xool si lu positif lu ñu am et puis gën ñu respecter en mao parce que souvent euh, bu ñeneen ñi di wane Sénégal bu dëkk bi di tàkk la ñuy wane. exactement bu fi jàmm amul la ñuy wane. alors que on galère bi voilà yu métti mm. alors qu'on a de mm. tellement de belles choses à voir. Ah, je pense que c'est important que ñun ñun ñun suñu bopp déjà. Mm. ñu gëmaat Sénégal parce que xam nga. duñ nëbbante fii koo ne Sénégal ñu ne la Sénégal du dem parce que y' a c' est que y' a y' a y' a même plein de yi nga xam ne kii. c' en cours de développement kii ak. mais ko war a yóbbu. ah voilà ñun ko war a yóbbu c' est à dire que bu ñëpp nee du dem kay bon du dem. dañ ko fooyee ba il faut que ñun ñu revaloriser ñu revaloriser suñu culture yi il faut que ñu revaloriser suñu dëkk euh, ñi nga xam ne kii dañu bëgg a dem sax xëy na peut être bu ñu gisee yenn affaire bi nañ ne ah mais en fait euh, y' a des que man mm-hmm. sama clip sunshine bi. Mhm. bi ma ko defee y' a plein de gens qui croient que Europe laa ko tourné. image yu ci image yi yëpp cap screen la parce que a des belles plages on a de beaux paysages ici. Mhm. xam mais pourquoi tout ce qui est beau ça de l' Europe non mhm. c' est vrai. Mao maa ngi lay dégg également sur le projet yaa ngi wax euh, côté artistique euh, musical est ce que ci ci ban partie lay lay ñëwee loolu. ci projet bi 52 minutes yëpp ça va être en musique en fait ça va être en musique avec euh, justement bon. jotaguñu contacter euh, artistes yu may wax noonu comme Baaba Maal Youssou Ndour bien sûr. non Baaba dégg leen Youssou tam dégg leen. mi ñëpp. ñooñu ñëpp c'est-à-dire que buñ tey jii bon Yandé Codou Sène malheureusement nekk fi. non da di woo les chats. voilà justement peut-être doomam bu ñu demoon tamit ci joolaay nañ jël ay voilà c'est ça c'est-à-dire que ressortir encore yi nga xam ne ki mi ngi commencer disparaître xam nga. Euh, parce que boo boo seetloo tey jii même suñu musique ñun ñii ñu ngi koy ñu koy perte de. parce que fu ah, nekk nii def ah, naa Naija la gën a xam que suñu musique suñu ah, propre musique. mais kii bi ñu ngi ñëw nu mu naka commencé di imposer wu. waaw mais ñun ñoo ko cest à ñun li joge feneen lañ gën a ñeme. waaw ji boo da ngay seetlu tey ji bu ma andi woon ñaari ñaari ceinture. Mm-hmm. ma ma ma ne ñaar yëpp nuru sax bu ma la ne bii nii France la jógee bii Sénégal la jógee da nga ah bu France bi moo. Eh, loolu mi ngi wàññeeku mi ngi wàññeeku mais c'est pas encore léegi. ex lii mu sol nii mais du Sénégal la et puis tout le temps fii ke ce soit yeewu leen wala quartier général sax moo si raw. Mm-hmm. Mm-hmm. quartier général ñëpp sol. tous mais loolu biir Dakar la. mais boo génnee dakaar les gens encore ils ont. dañu encore kii wu. mais wàññeeku na quand mi ngi non mi ngi wàññeeku aux médias justement parce que léegi y a y beaucoup de communication sur ça chose, hein, voilà décomplexé euh, xam nga euh, euh, bañ a xeeb lu ñu yor daal parce que on a beaucoup de ressources on a beaucoup de richesses et loolu ñun ñoo ko war a njëkk a bëgg ko pour ñeneen ñi tamit ba ñeneen ñi war ñu ko gën a bëgg projet bi dina dina pare d'ici combien de temps wala day dépendre ci budget bi nekk fii ça parce que xam nga budget bi ñu defoon c'est plusieurs paliers c'est-à-dire que un premier palier bi nga xam ne ça nous permettra def film bi un deuxième palier bi nga xam ne ça nous permettra de justement euh, liggéey ak musiciens yooyu noonu yëpp bëgg liggéeyal mhm. amaat na beneen palier bu nga xam ne ki euh, bu sottee incha allah par exemple on, on, pourra partir avec des médecins par exemple ci village ñuy dem yëpp ñoo xam ne dañ mën a justement def communication ci euh, sur la santé sur euh, pourquoi pas ci affaire u euh, vie saine bi naka la ñuy lekkee sainement faire des consultations gratuites affaire médecins yi dama lay booleeg waa association Samad ñoom ils vont souvent dans la ci biir dëkk bi mhm. pour def ay consultations gratuites mhm. aider lan moo leen dal faj leen effectivement donc foog nga ah. déjà booy dem nga ànd ak boo demee boo demee ci ci ci village yi am na ñoo xam ne mosuñoo gis dentiste am na ñoo xam ne ophtalmologue xamuñu lan mooy mooy ophtalmologue c'est important que ñu. voilà mm-hmm. yooyu yëpp. boole euh, c'est des sénégalais c'est des sénégalais. voilà voilà c'est des sénégalais. et important de de de dire que c'est un une fois c'est un projet de sénégalais.

donc ñoom it ils ont les moyens ils ont besoin aujourd'hui d'avoir les moyens de date euh, de pouvoir maintenant de leur politique pour mën a def seen documentaire boobu c'est noble mhm. je pense que ne sénégalais képp kuy sénégalais aujourd'hui que tu as les moyens nekk ci secteur boobu war nga leen mën a jàppale sans réfléchir ah parce que tout le monde en profite. Il n'y a pas que le Dakarois mais c'est le Sénégal. et maintenant il a des structures yoo xam ne état bi teg na ko pour ñu ñu ah. ñu jaay dëkk bi. comme ni ko waxee pour la promotion je pense euh, ñoom ñëpp ñi ngi je pense que yéen aussi bu ngeen gënee jege structure yu mel noonu. Euh, mën nañu accompagner même les partenaires les sponsors qui sont là normalement war na leen intéressé parce que lépp ci dëkk bi la nekk. on appelle tout le monde et le premier sponsor c'est le Sénégalais. c'est le Sénégalais ah exactement et euh, et. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire encore Euh, affaire bi c'est pas juste euh, de donner de l'argent il y a des gens qui ont pas de l'argent mais peut-être ils ont une connexion pour faire un partage si ah, absolument voilà et notamment les les les euh, les stars sénégalaises aussi on les attend parce que ñoom ils ont une grande portée aussi donc ñoom bu ñu ko partager pour partager voilà s'ils partagent de trucs façon ñëpp nañ ci jàppale Sénégal entre ciel et terre pour que projet bi egg pour ñu mën a gis suñu dëkk ci beneen anam comme ni ñu koy waxee bu gën a nice boo xamante ne daf ñuy rendre fier ñun ñi nga xamante ne ñoo fi dëkk permettre ñëpp ñu xam dëkk bi euh, ma bàyyi leen rek parce que ñi ngi mën naan nii ñii ñi ngi dem sama nopp bi <laughs> mais nañ ñu tëj émission bi mu fin yéen ñëpp ngeen dem tëddi seen kër wala ngeen defi leneen loo leen di def pour finir le mot de la fin Audy euh, Audy alors pour le mot la fin <laughs> euh, je vais faire essayer bien voilà comme on l'a dit dans la vidéo c'est un projet pour le Sénégal et pour les Sénégalais donc pour nous c'est pas notre projet à Mao et moi c'est notre projet à tous

nice nice nice nice nice ba jéggi daajo ah taaru taaru taaru sow taaru taaru taaru sow taaru taaru taaru sow ba jéggi ah. daajo voilà neex na merci beaucoup Mao et Audy pour projet bi ngeen indi ñu waxtaanee ko donc c'est très important ñun ñëpp nañ ci